def ak coono. sama doom gi bi nga duggee. xoolal sama kër gi lumière bi ni mu saasi. kër gi dafa saasi. maa subhanallah. yow daal yaa mun a tooñee. ah yow de kaw ma dara de waaye yow de moom dugg nga sama kool bi neex nga ma. yaay sama tonton bi moo mën a tooñ. tonton de. doo tonton wii am wii yow man maa ngi bugg dof ci yow nga ma garaa. maa dof ci man man mii nii. pël bi laa yàqal voilà voilà bu ma may liil dégg nga loolu bu ma may liil fi ma toog si jàpp sa ñaamu lay sama bopp bi day métti yow lan laa wax ak yow nga naan dama lay sa affaire yi caga yi bu ma ci boole leer naa wax naa eh, leer xalaat yow wax xam nga ma ne waxuma ak yow rek demal nga toog demal nga toog la la def waxul ay waxul dafa waxul la de bu mu déconcentré loo waaye demal nga toog waaye yow yàqalaat rek nga mun bu dee góor yàlla bu dee góor yàlla nga moo toogaatee fi tudd ma tudd sama tudd waaw doo ko dégg de waaw waaw baal ma ak nag xam nga ngay wax nit di la dérange nii sax neexul parce que yow yow nit warul la dérange ma ne man li ma bugg mooy tottaami numéro téléphone ma téléphone ma boo ñëw rek da may def si xam naa ne bu ñu génnee ci koor gi wala man daal dinaa la woo yow woo ma heure boo ko sentiree bu la neexee sa nga kër ga ñu def ràcc loo bëggee yaay bañ ah yow bàyyi li ngay wax nag weeru koor gi ma jaar si kër ñu def li nga bëgg a def mun nga kaa def te kenn du la xamal dara boo ñëwee sama kër foofu amul benn problème loo bëgg rek loo commandé man ma defaral la ko mais na pause bi diis loo bëgg ma def ko. baax na dinaa fi ñëw. ana sëñ bi mu ngi ci biir wala mu ngi biir sëñ bi eh. Arnaud eh. moom nag dafa am wërsëg torop sëriñ bi kii. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. Eh, waaw waaw. waaye. sëñ bi. sant na bu baax a baax. naka koor gi sant na bu baax a baax sant na alhamdulilah. ça va jàmm ak bisimilah bisimilah bisimilah man de sama toog yi moom gone yi dana xaw a waat. fu seer na di. ah amoo benn moso mu ci mën a dalal. ah lépp moso waaw xaaral ci yoon bi yoon bi rek. non garaaw bu dee mbaxa ne moom problème bàyyi ko. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. xam naa la ça va. koor gi yaa ngi ci boobu léegi nag maa ngi fi bëgg a ñoom mais wax dëgg yàlla damaa amul jot ma gën a xam ah, dafa yàlla baax te nag ne nu ma mun a def rek hmm. dinaa fi ñëw waxtaan ak yow ndax euh, vraiment macha allah tey boo gisee samay tànk hmm. dama ñëw uniquement pour remercier la macha allah kenn di yow hmm. ni ma la ko waxee woon nee naa la man jaar naa fu ne sëriñ bu ne jaar naa fa <laughs> mais li ma defal amul sëriñ bu ma ko mën a defal. ba a gore rek ndax bari na ñoo xam ne réew mi maa la ñaar waa defe nii def waaye loolu ngay wax nag moom moom maanaam loolu moom yem ma ci ku bi moom waaw xanaa bëgg ma di wax sama bopp ndax ma wax sama bopp damay xaw a damay aalu ndax ma affaire yi yokku na mbaraan gi gën naa dox mooy yow yeneen day ñëw bilaa da ngaa baax naa oto rek jag prix beeg lépp lay xalaat ci teraanga juy naaw yàlla yàlla ko jox. li nga def leer na naa ñi moo tax tey dama ne xaaral ma ñëw wax dëgg yàlla defal la teraanga. Hmm. ndax teraanga teraanga koy fay. Ah, du dëgg tey nag dama ñëw indi la deux cent mille pour nga <laughs> préparé mais nag dama la koy envoyé sa téléphone. Ah, waaw xam nga euh, instant bi yoruma sa numéro parce que sama téléphone bi ma yoroon bu njëkk bi. waaw fële sama numéro yëpp des. Ah. léegi da may jox sama sa numéro comme saa ma envoyé la deux cent mille. laa lay envoyé. ñeneen. il faut que junj du caaxaan moom. du caaxaan de. xam nga tubaab day yàq xaalis. waaye deux cent mille day wàññi ko daanaka ñeent fukki. ñeent fukki junni la joxaale ma sa bopp ndax bu ñëwee ba xam ne yow xewal moom day wóor xewal fii sa bopp bu ñëwee ba xam ne yow gone yi moom dama saa saa léegi waaw macha allah moom tey bi sax da cee changé waale. lépp yow la kenn yow envoyé naa la ko léegi vérifié nga xool message ndax ñoo na. ah jërëjëf yow wóor naa la vérifié naa la ko baal ma ko vérifié. wóor naa la. toogaay amul. léegi bàyyi ma dem dinaa fi ñëwaat incha allah dinaa fi ñëwaat su ma ñëwatee dinaa la dolli. nga ni xamante nañ ko. baax na boo doolee ma dool rek. waaw incha allah boo doolee ma dool bisimilah. léegi ay ci kon ma ñëw yàq waxtaan bi rek ba beneen yoon. incha allah waaw waaw waaw waaw looy def ci sa ci téléphone bi yow yow yow yaa woon ci biir waaw ah kon kon kon dégg kon dégg de biir tëdd damaa jàppante woon ak ay nelaw ah, ni nga nelaw waaw dañoo woor kay yow booy bu mool bi ñëw fii booy bi xees booy mu la gën a xees foofu ban booy. kooku kooku kooku kooku ay ay ay daa ay temps gisoon naa ko benn benn jour foofu ma lay wax ne yaakaar naa ne foofu yow nekkoo nekkoo yoon xam dégg rek mu moom woon ak moom il faut que sax. ñànk li ngay seet nga ci yàlla. bu fekkee li may wax du dëgg yàlla naa juróom-ñaari safara xanaa xanaa xanaa boobu dee na ëmbal na ko xale bi yàq amul kooku moo ñëwaat fii yaa dégg mais affaire yi léegi moom càngalaat léegi am na xaalis mu ñëw may ko xaalis jox ko numéro fu ñoom ñaar ñu continuer léeg-léeg nañ ko fii ba fale ñoom ñaar dem na dem na. yaa sa nijaay. moom la dem gunge. numéro mu ngi fii dem na moom la gunge. numéro mu ngi ci téléphone bi. dafa am lu ko nag am code xaw ma code sa nijaay. xam naa xam nga ko waaw. dugalal gaaw balaa moo ñëw. sa nijaay ñëw. cent francs nga may jox cent wu lan. cent cent cent cent. waaw te jël lii dinaa la jox cent franc. déedéet man du ma nu ma liggéey noonu. man teg teg teg da nga def xoj ma la jox waaw dugalal code bi balaa la jox cent franc ñànku. yaa ko wax de. maag yow ñoo far dugalal code bi rek gaaw balaa sa jaay di ñëw. quatorze cent sept. douze. ñànku yéex na de. vingt yàgg na de. xaaral cent seize neuf. maintenant 407 39 10. 4. ñànku yow est-ce que fàtte woo code. xaaral xaaral 0 0 0 0 0. du ma du ma wute dafa mën a ay de xam ne eh, dafa mën a ay code xaaral xaaral. man lu ma ci métti xaaral 9 mu mu 9 2 9 12 24. te la xoolal ñànku xool. Eh, eh, ifeelu ifeelu moom. waa ñànku. waaw. bi di. bloqué nga ko di. kama kama na kan ma ko bloqué. mi ngi nii lii bloqué na di. kan ma ko yor ku ko yor. man maa ko yore. yaa ko bloqué. ba ko bloqué nga ma ko jox ko dama ko. bul tuut bul tuut. mu doon naa ko wax sa yaay yow. ah nu ngeen jot tuur yéen daal tuur ndox mi ngeen tuur nu ko ndox si bet ngeen tuur nu ko seen i yére lu ngeen yow nee na mu ndaw ku dagat bopp nga yow yabaata bay bagate waaye yow ba ma gisatu ko rek waaw <laughs> waaw li dara ko wax moom loolu ma ñaanal benn maire jànku ju ndaw ji rek yow lan yi dañ lay jàmbat sama jëkkër nangam ma loo yor jox leen ko sama gàncax gi bay ma ñaanal mag yow mooy sarax rajo Abane wóoyaay. Il faut Maya Naya naam Ndiaye yow yow sama waxuwaay bi ku ci nekkoon man Ndiaye maa ngi tëddul ci biir de fii la waxuwaay bi nekkoon ah, ah, ah maa ngi lëfi nii dara ni day xaw ma ko ci nekkoon man maa ngi woon ci biir tëdd boobu. ah ah kon yow lan ngay jëriñ ci kër gi. Eh, eh, fay sa dof dof yi yaa ko bloqué léegi fii di jaay fenn. lan laa bloqué eh, ñànku. yow sa dof yow dégg nga dégg muy ñëw la nga daw dugg ci. wax ko dëgg. fengante kii boo fi wax ne xaw ma nee na dafa tëttali fii di la dégg nga wax nga xale bi xaw ma lan yàq yàq ëmbam bi dëgg la ah, eh, ah fii la tax ma rey sama téléphone nga ciy jéem ba yàq ko nii eh. yow la nijaay waxuma loolu loolu yëpp ay wax yow ñànk man ngay sosal eh. dootoo ko def ak yow ci biir kër gi yow la xaw ma ko yow la waxuma ko ñànk mii moom ma ne am na xale bu jigéen bu la seet si gel la ëmbaloon nga ko avorté na oh yow may fàttam yow mën naa fële moo ma ko wax ay waay waaye bu ma def na baba da ben waay waay yow nga la ko xoola eh du nga eh man du ngeen ma fonto ah man du ngeen boloka sama ñeent fukki junni ba pare di ma rayee ko xaa ah. kii di wax di jox kii di wax di jox kii ngeen koy jokkate jëmale fan ah yow fii la tax ngay fen ba yàq sama téléphone bii ñànku mii lu ci ne moo ko ci ah, def waaw léegi sama ñeent fukki junni génne leen ko eh oh yéen fukki junni yéen da ngeen ma ko mën a jox ci koor ba di ko yàq. Eh eh, eh, eh eh du ngeen ma yàqal li ma rey wax ah du ngeen ma yàqal li ma rey wax ah. tey tey tey saaga sa waajur. dama lay la kaju la tey. ah ah métta man. wala ma lay wax léegi métta man. li ma li ma dundoon démb. métta man métta ah, ah, man. ah kaju. loolu la ñu gis ah. tey ñu ngi lay yàq fukki junni yow nga may ma naan